fii ñu bari fii si Ndakaaru Njaay gi moo kasak seen kasak léeg-léeg sax mu tooñ ma naan ma ma ne ko man mosoo ma kasagal mais bari na ñu bari fii euh, euh, moo leen kasak donc ku mun yàlla may mu mën a way am taxawaay bu am solo si musique amal ñëpp jàmm duudu vraiment jàmm rek lañ seqoon mu nit ku baax bëgg ma trop turandoo rek la may wooye donc ba yàlla dogal ministre Mbagnick Ndiaye bu mu nekkee ministre culture Macky Sall digal ko pour ah, yenn euh, musiciens yi amul moyen ñu defal leen ay cassette mu woo du sekk pour def ko ñun ñu la woo maag Bekaay Mbaye ñun la dénk projet bi ñoo woo du sec ñoo ko yóbbu studio bu muy defee xaaj bi suñu la ko teg ñoo ko fayal lépp ba defal ko cassette mille kaset donc loolu image la boo xam ne dafa des sama sama diggante ak moom maag Bécaye Mbaye donc Papis Konaré moo ko defal euh, moo ko defal kaset boobu donc duudu dañ koy ñaan yàlla yërëm ko ci barke Seydina Muhammad maanaam mbër yi dañ dem ba bëgg yéexal làmb bu wayee ñu bari loolu dafa am solo bon bëri na lu bari daka daan def si làmb daal lu bëri waaw ah àdduna nag moom àdduna la rek tey ñàkk nañu ndey ngom Bambilor ñàkk nañu beneen doomam bu mënoon way donc àdduna mu ngi noonu rek dañu ñaan yàlla ñu xaare àjjana ñeneen ñi fi des yàlla may ñu ñeneen loolu mooy loolu mooy doomu aadama mais tey doo diw génn àdduna nag leneen doof fi am loolu kenn mësu ko gis. aadama ma jamaa ngay samba jay laña samba corofal sidi barxaam asu jànxay yaayam baay ñas ablaay baayam ku la neeti maa la gën ko naan ku la yar